ay ayca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jiili père Biraay mbokk yi fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew maa ngi lay nuyu bu baax gën kaa kawe ci nuyoo gën kaa màgg ci nuyoo muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barkatu mbokk yi ni koy defalee saa su ne jàngat làmb bàyyi jili waaye duma ci wéet benn yoon ndax dama ciy ànd ak suma xarit suma papa père Birahim Ndiaye nga xamante ne macha allah xam bu sell àdduna bépp ñoo ko ànd rafetlu ko. ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gannaaw loolu dama koy bàyyi mu nuyu mbokk internet di su ko defee ñu wéelu waxtaan bi Père Birahim maa ngi lay nuyu di la siyaar waaw jërëjëf waaye auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mm-hmm. di wax subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa mm-hmm. ngi nuyu mbokk internet yëpp di commencé ci borom kër gi ba mm-hmm. ci teg xale yi nga xam ne moom laa ñoom laa bokk liggéey bi ñoom Bachir Hmm. dégg nga ñoom kàkku ñoom Abdou Khadir sama doom sama xarit. Adama hmm. ñoom Ndiaye Paak ñoom seen xale yëpp ñu nga xam ne ñoo bokk nekk ci liggéey bi fii waa hmm. waaye di ñaan yàlla bi yàlla na ko yàlla jëmal kanam. amiin yaa rabbi lu ci jub yàlla la lu ci dëng itam ah ñu ñaan yàlla na ko yàlla jubal rek. ba xam ki nga xam ne tamit moo ko sos tamit am yàlla defal ko ci mu am ci ndam. amiin yaa rabbi ndamam mooy suñu ndam daal. waaw ah, kon nag di ñaan yàlla ah, ñu fas yéene taxawaale waxaat suñu xalaat. Mhm. père dañu loo indil combat bu mag dox ci diggante Ama balde ak Papa mu nekkoon combat boo xamante ni keroog euh, ñu ngi ko defee stade Léopold Sédar Senghor mais mhm. foo sànni mbàtt mu takk ndax bëri mbooloo ndax combat bu neex combat boo xamante ni technique feeñ na fi ñu bëggoon rek indi la combat boobu tey nga décortiquer combat bi gannaaw loolu combat Ama balde ak Papa Sow nan nga ko gisee woon mais combat boobu kon man man maa jum ay combat boobu est-ce que Léopold Sédar Senghor la wala li wala li am démb. Léopold Sédar Senghor la. Léopold Sédar la waaw ah, waaw Léopold Sédar Senghor la de. ah kon dafa amoon beneen grand combat. Ah, ah. wala moom moo doon grand combat bi. ñoom ñoo nekkoon grand combat bi. Léopold Sédar Senghor bi la woon. bii la waaw. ah pourtant man maa ngi defoon ne ah, ah, Demba Diop la. waaw Léopold Sédar Senghor. ah waaw dëgg la. maa nga fa woon maa ah, nga dëgg la dëgg man mii kay maa nga fa woon. waaye damaa fàtte xam nga mag rek. boo jëm mag rek ak na nga ne léeg nga ngay fàtte rek. wallaay du ma la yàq. du ma la yàq waaw ndeysaan mm. dëgg la. xam nga combat boobu annoncé woon naa fi nee la xam nga ñaari taxawaay toujours. Mm. ñaari taxawaay du ñëw parce Papa Sow dafa am lu muy bëree. Mm. Papa Sow xeexkat la mais gis nga pied gauche bi muy jiital. di ko xeexee mënu ko bëree dëgg la droite la mën a bëree. Mhm. mais nag gauche la mën a xeexee. Mhm. loolu dafay am ci mbër. la moo tax ci bëreem toujours day man bu daan fekk ne ci kanam tax dama ko wax ne que pied gu pied droit bi nga mën a bëree. day ko teg ci kanam ci jàng xeex. Mhm. ci jàng arrêt de droite crochet gauche arrêt de droite crochet ak riñaan. loolu mooy bëri. waaw Ama Baldé nag droite bi lay jiite ba pare droite boobu la mën a bëree. waaw. moom lay xeexee moom lay xeexee mais mais tax gis droite bi. da koy bàcc. Mm-hmm. mais du ko jëm direct da koy bàcc nag da koy bàcc. Mm-hmm. bàcc ak dóor direct du benn. Mm-hmm. waaw bàcc mooy nga xàcc di ko bër nii. la direct jóge ci poqataan bi tàllalu mu jub. fermé wala sa menton. yooyu du benn. ay ñu ñu dem ci combat bi. kàggu euh, dox ci diggante Ama Balde ak euh, Papa saw père Ama Balde moo féetee. waaw moo mooy nii waaw waaw ak forme bu rafet wax dëgg yàlla. waaw boo gisee bàyyi bi rek nga xàccee jamonoom nga xam ne dooyu mbër la. arbitre bi laaj na ay ziisam Papa tàccu na mhm. arbitre bee ngi waaj a sifflé mhm. gannaaw laaj na Ama laaj na Papa Sow waaw arbitre bi sifflé na dem nañ mhm. per dañu dem rek teel ma kàggu waaw père dañu dem rek Ama Baldé dox tànk waaw jëm ci kaw Papa Sow loolu lan la mais loolu koo gis mbër mu ko def nag ñemee nga mbër bi ngay bëreel hmm. mbër bi ngay bëreel hmm. am nga yaakaar ne kii boo ko jàppee bëre bi jeex hmm. waaw bi mu ko xodd xëddee mu daw gëddaan mu arrière gëddaan mu arrière pas latéral la waroon def moom papa soo waaw soo ma gëddee ma dem nga gëddati ma dem soo ma gëddaatee latéral laay def. Mhm. latéral gauche soit ma dem gauche soit ma dem droite. Mhm. ak tàllal arrêt arrêt bi frein la. Mhm. da nga may gëdd ma ba ma arrière ba par exemple dem naa gëdd nga ma ma dem benn pas. ñaareelu pas ñetteelu pas tamit latéral lay def. wala ma dem latéral goos wala ma dem latéral droite loolu mooy yoon. waaye gëdd bi rek mu topp ko topp ko ma arrière bi woon yoon quoi. bi mu defee ñaari pas rek latéral la waroon def mm-hmm. maanaam ñëw ci côté bi nii wala mu dem ci côté bële ayca ñu dem ñu jékki-jékki gis Ama sànni na ko voilà xam xam nga coup bi mm-hmm. xam ko coup bi bi ni a mm-hmm. ngay kóobu koy balaa mënut a ñaar tànk yi dañuy rat taxaw mu am doole mais ñëpp bi xam nga tegul suuf bi nga tànk bee tegul côté te kub dafa yóotu waa ji du yóotu ko waaw du du direct bu mu. dóor maanaam du ko jot du ko mu dal du ko mu dal ku boobu a hmm, kon du ko doon wan ni maa ngi ñëw rek sànni ko maanaam mën naa la wax ne dañu ubbi bunt bi rek. Hmm, hmm. bunt bi la ñu ubbi pour nu ko jàppee. ayca ñu ñu dem. ñu dem mu doxaat ci kawam. waaw gis nga ba tey rek ba tey rek li ma la waxoon rek. Papa Sow bi mu arrière rek latéral la waroon def rek jëm nii jëm ci côté droite bi eh. jëm sa côté gauche bi. père Papa Sow. waaw ah. dóor na Ama Baldé ku dal. waaw ku pañu menton fii. waaw ah. kàggu reculer tuuti rek waaw coup menton bi nag bu fekkoon dal na na mu war a dalee. Mhm, bàyyi mu daw yaakaar mu voilà. Ah, ah, gis nga gis nga li ma la wax nii gis nga ah, coup bi dafa dal ba a ges moo tax kaay ma ñëw fu ma leeralal la fii. Mhm. gis nga pied gauche bi muy jiital. pour droite tam bi am doole. Mhm. moo tax mu gis nga bu jamee goos bi rek ñëw droite bi. dóor na ko gis naa mu dóor ko euh, nees. dóor na ko nees bi mu koy bi mu koy dóor ci bët. waaw mais bi mu dalee. boobu riposte la waroon def. mayaat temps bëre bi rek léew too war. mayaat ko temps nataat ko. bu ñaaree rek mais bii bu dal dafa dal da gis nga bële bële sax moom dal na carrément mais bii coup bi dal na ba tey waaye des na. bu Papa Sow bi waaw. Hmm. parce que bi muy dóor pour man xoolu ko. Hmm, daa sànni rek parce que. ñu dafa sànni rek mu daal waaye bu fekkoon xooloon na fi muy dóor menton bi. Hmm. ak gisoo ni mu ubbi ko nii. xam nga kii boppam mi ngi jublu ne. xam nga jox na ko ngaam bi toujours. jox na ko fii yëpp gis nga ko. ma su fekkoon xooloon na fi muy dóor bu laalee ci suuf rek mu dem. bu laalee menton bi suuf mu dem. mais jotu ko laal foofu. ayca ñu dem kàggu euh, ñu dem. gis nga gis nga noonu. mu daw nga père fii. per fii boo xoolee Ama mm. Balde. Mm. loxo bi mu ngi nii. Mm. benn loxo bi mu ngi nii daa mel ni daa bëgg sol Papa mais bëre bi fi actuellement li muy wane mooy. bëre loxo la tànk moom bokk gu ci taxawaayu Papa bi nii noo ko gisee ak Ama Balde loxo yi. waa xam nga bëre. lan tànk koy def loxo koy def. Mm-hmm. soit nga bëree loxo soit nga bëree tànk. Mm-hmm. mais ak guñ tànk yi parce que kenn jàppul tànk moromam. ah actuellement kon loxo la ñuy def. loxo rek la ñuy bëree bras nga jàpp bras su nga dugal ba génne nga xeex ñu jàngal fii ne loxo yi rek ay liggéey mais tànk yi liggéey ko parce que gisoo ko kenn ku am ci làmb parce que da ngay gis loxo bi comme ni muy def nii. Ama Baldé mënu woon jékki-jékki la mais loolu tamit ba tey gis nga xeex bi xeex bi ci kaw nii. Mhm. mooy ubbi mooy ubbi ci suuf pour mën a jàpp tànk bi. dëgg la jàppante bi ci kaw nee. Mhm. boo bàyyiwul xel ci sa tànk yi moo lay riñaan fii doo ko yëg bu jàpp sa tànk doo ko yëg Mm-hmm. parce que ci kaw lay ubbi ko door a ñëw ci suuf. Mm-hmm. waaw fi ngay amee padd jéem a padd wala jéem a añ mu daangal naa mu rasu nga jéem a ne coppe tànk wañ yooyu yëpp foofu fi lay ubbi ko nag ci kaw. Mm-hmm. bëri bi fii lay ubbi ci kaw fu mën a ñëw fii ci suuf. ayca moo tax euh, sooy bëri fii loo xeex xeex ci kaw ni bàyyil xel ci na waa ji suuf la jëm. ci suuf la jëm dëgg la. waaw loo xeex xeex ci kaw. calculer rek ne waa ji yàgg yàgg samay tànk la jëm suuf. ayca ñu dem léegi gis nga continué fii. waaw Ama Baldé daw na. Mm. Euh, Papa Sow jël na Ama Balde. waaw mais gis nga fii père. Mhm. Euh, dafa mel ni. Mhm. Euh, Ama Balde gis nga tànk Papa bi ci suuf. Mhm. loxo bi Ama Balde nga ko téye fii Ama Balde da koo njëtt actuellement. waaw njëtt gi mu ko njëtt. beneen loxo bi gisuñu ko waaye dafa mel ni loxo bi mu ngi raam. jëm ci ngemb Papa bi actuellement nii Papa Sow lan la waroon def. fii daal a fa la faal. bu doon man damay xool fi may toog rek bu fa xeer nekkee ma jéem koo moytu. Ah, feeñ loolu ah mooy xam fi kay bëre bu jeex la. mooy maanaam jeex da daal. Ah, bëre bu parce que ki nga xam ne moo la sut ba pare ëppoo ko. Ah. wala féete nga fexe ba sàggan ba mu ëmbale nii. dégg nga njett la nga féete suuf mu yëmb la loxoom ne ci biir mu loxo beneen loxo ba di jéem muy beneen bi di jéem a travail ba daanaka sa taat daanaka taat bi dem daanaka dem na suuf. waaw kii boo fee la cee wërsëg la. Mm-hmm. waaw dëgg la fii boo fi rëccee rek wërsëg du mën a bëre mm-hmm. dafa am assance yoo xam ne boo ko amee ci làmb bu di tiis na man damaa mën a bëre man daanaan laa mm-hmm. nangam nangam dama bëri technique déedéet bëri woo technique da nga rëcc fii tey bu fi ba baal mama bu fi fukki rëcc woon rek xamal ne tey daa am wërsëgu rëcc waaye fii mënta génn fi génn mukk ci àddina waaye parce que moo taxit lii waru foon a ëgsi waru a a ëgsi fii nan la waroon def avant ñuy ëgsi fii lay bañ lii dafa mais dox mais ci biir combat bi père dañu xool ne Ama Balde moo dox ci koom. waaw Ama Balde moo moo xeex. Ama Balde moo jàpp mais Ama Balde moo daan Papa Sow moom euh, li mu def ci làmb ji bariwul. waaw xam nga lu ko waral. Hmm. dañ buñ la boolee koo xam ne moo la gën a féete ndaw ba pare dàqoo ko bëri mu ëpp la doole gën laa pare it noonu rek lay demee. Hmm. waaw maneel daf cee feeñ complètement hmm. maneel da cee feeñ complètement ci combat bi. waaw ki la sut maanaam bokk ëpp taxawaay. gën ko pare maanaam combat bi daal combat combat wu Ama Baldé la parce que Ama Baldé a pare ci combat bi hmm. boo gisee ñoom ñaar bi ñu sumi ko ba taxaw nii rek sax hmm. nga xool Ama Baldé moo gën a pare kii ay ca ñu dem ci combat bi xool fu muy mujj hmm. euh, gis nga ma nga noonu waaw ah, gis nga ma nga noonu teel xam nga jéem na jóg dellul tuuti kàggu ah. ah, waaw teel voilà mu ngi noonu père mais gis nga gis nga fii tam xam nga lu tax du mën a jóg xam nga loxo bi téye na ci ngemb li ci loxo bi lay plaqué daw yëg ko moom la sol nga dëbb sol bi mu sol nii. Hmm. day def rek fekk ko fi mu toog yëg ko bu ko yëgee day tëdd par force. am Papa loxo bi fii mu ngi ci biir. waaw mënut a rëcc. mënul génn fenn. mënut a rëcc fenn parce que xam nga ko waral. Hmm. xool loxo bi mu téye nii ak ni waa ji ëmb ëmb ci ba pare gis nga loxom bi ci biir nii. Hmm. fii dama li ma la wax sànq rek su rëccee rek wërsëg fi feeñ. waaye ku mën a bëri tuuti koo xam dara tuuti ci bëri ngeen dem ba toll fii ci biir bëri nii pour nga rëcc day jafe. parce que Ama Baldé bii suba Papa Sow rëccoon fii ak champion day daal des. Mm-hmm. ak champion. Mm-hmm. nga seetaat bëree itam defarwaat nag. xam ne mm-hmm. dese na lu bari ci làmb. parce que yi nga fi tudd ci kaw yëpp ku am lii ci ñoom dootoo ci génn. waaw maa la wax lii kay téere laa. kon Ama Balde lii mu am ci kaw Papa bu ko amoon ci dix mbër du ñu rëcc. fu kan fu ñu rëcce ku ci rëcc rek xanaa lenn. Hmm. wërsëgu la feeñ rek. <laughs> mu ngi mel ni jiili mu dox ba fakka solo benn million bu mu doon taxawaal. képp loo doon. ah wërsëgu daal rek képp lépp loo rek la. wallaahi jaay wallaahi jaay am na yenn yoo xam ne ci làmb. Ah. du mën a bëri moo tax li li gën a wóor. Ah. bu leen fa àgg. dëgg la. moo tax damay wax toujours mbër nit ak lu mu mënee. Hmm. bul ne mënuma cee daan. Hmm. danga naan fexe ba du ma ko def. dëgg la waaye su fekkee juum naa ba mu def ma ko nag dinaa jàng nu ma ca génne. xam nga fi may waxee. xam naa bu baax da ngay dañ lay jàngal nu ni bu ma jóomee ba mu ëgg si ma fii. Mhm. lii moo ma cay génne. génne mhm. loolu nag xam-xam la. Mhm. moo tax booy ci bëri nañ jàngiwaat. dese nañu bëri de. ndeysaan yu bëri tey jii ñu ngi lekk million toog nii tey jii. dese nañ ci bari lu bare bëree bari maa la wax lii. saan ñu ñëw ñu ñëwaat ci ca kàggu ñu dem. ñu dem. gis nga noonu ah. la la la Papa Sow toogee. waaw ah. Ama Baldé féete ko kaw. waaw day toog gis nga ni mu daanoo. waaw ah. ay ca ñu dem. gis nga voilà mooy lool bi gis nga da da da njaboot moom ci ginnaaw ak dëbb sol bi mu ëmb ko de gauche droite. Mm-hmm. xam nga kii ëmb gauche droite ba pare loxoom ca ginnaaw ba pare dëbb la sol. day mm-hmm. plaqué rek daw yëg la. Mm-hmm. wallaay nee la yii bu fekkoon tey dañoo am te dañoo am benn tapis. dégg nga am na ci bëre yoo xam ne yii li may wér ak mag geeg rek waaye kon tey naa la woon ay système yoo xam ne yi dama ne kii nii la a def nii. mais père fii da nga ne. Hmm. Euh, Papa Sow maam wërsëg dëgg moo ko ci mën a génne. waaw te man damay seetlu mbër yi des fois ñuy bëre. maye wër ndomba nga xam ne kii. non non wër ndomba moom moo ko tey maye ko. te da ciy daan non non loolu moom koy def daf la ko ci daan ko ko maye fukk di nga daanu juróom-ñett. Hmm. ba maa la wax lii wër ndomba. Hmm. yow jii nan la ñuy jàkkaarloo maa ngi yow di léewtoo nii ba pare ma jékki-jékki may la nii ma jàpp waaw lii. lii jiili yëtam. yow di ku ñu ko may di la ci daan booy ba bàyyi bëri. wallaahi wallaahi jaay. wallaahi yow nga jàkkaarloog man góos ak kanam ak kanam nga léewtoo léewtoo. salaamaaleykum ma jekk ci ki may la ginnaaw. yow nga bëggoon a wut sama ginnaaw ma war cee gar sama bakken reyante ba doomu féete ginnaaw. Mm-hmm. man mi wax ak yéen nii bëri naa ba bàyyi bëri kenn musuma war ndomba. Mm. dama ne képp man ne la bëri naa ba bàyyi bëri laa wax. Mm-hmm. mus kenn suma wër ndombo. mais daan nga wër ndombo tamit. daanaa wër ndombo raar mm. dinaa wër ndombo léeg-léeg rek. Mm, mais bariwul fii léeg-léeg wër la ndombo nax la daan la. Mm. boo dee moo la boo dee nag ngaaka wala nantewu la moo tax téye sa loxo fii léeg la ndax wër la dem. mais may la nga wër ma ndombo. Ah. mos loolu defet la. ndeysaan. moo tax ku ñu may wër ndombo nga rëcc. mu bàkku mukk ne tey jii maa ko may wër ndombo daa ma daan déedéet du mën a bëre benn booyu mbër mas naa ñëw ci ma ne ma père man damay dafa dër nag damay bëri bay maye tànk ma ne ko de sa mbër du sori. waaw oh, ma ne ko ah, waaw mu ne ma ah man damay maye tànk. man oh. da sa bala maa mën nga jàpp sama tànk ma ne ko. ka ngay <laughs> may sa tànk daa xamul nu muy jàppee sa tànk. waaye bu xamee na ngay jàppee tànk doo rëcc. nit ñaari tànk la. yow nga taxawee sa ñaar ma jox la sama benn man ma dese benn est-ce que loolu wóor na ci. wóorul de maye tànk de yàqoon sama zone bi. non maye tànk seen yoon sax ci bëre. am na samay mbër yoo xam ne du ko wax ci télé bi dégg ñoo xam ne seen seen yàqu na tey jii maye tànk lañ doon def ma di ko tere entraînement. la Ndiaye. tànk kenn du ko joxe. déedéet. ñaar la yor benn bu la yàlla nattoo sax yàlla yàlla yàlla ump ñun ñëpp. Hmm. da gis ko yàlla dem ba am jabet wala dara ba ñu ambité benn tànk bi. Hmm. nu muy def. waaw bu dee ba ñaar tànk yi montu lu muy def yor ñaari beeke. ñaari beeke. ah wallaahi. dégg nga li ma la kon tey jii du fii laa ñëw keroog yor sama <laughs> kii daal ah père léegi yor beeke. <laughs> waaw sama sama jeune yu metti. wallaahi yaa ngi dégg li la kon tey jii dafa am yoo xam ne. ma yokk ko daal père yor ah, ma la. waaw ndegem uh-huh. a a bëri mm. a mm-hmm. bëri di ko bëri di bëri ba ñu bett la def la ci. Mm-hmm. ëgg si la ci foo xam ne fii dégg nga ñëpp yaakaar nañ ne daanoo des nag. Mhm. Ah, nga nga war cee loolu mooy. mën a bëri tànk sa bopp. waaw moo tax am na mbëri tànk yoo xam ne boo jekkoo ne jekkoo fii taxul nga daal leen. dëgg la Ndiaye gis nga keroog boo Modou Lo di Eumeu Eumeu Sène ba mu ko yenoo ca bekkaay ne ma jeex dama ne ko jeexul parce que Modou Lo borom tànk la. Mhm. jàpp tànkam jekkoo taxul nga daan ko de. Mhm. waaw waaye nag moom it loolu mu maye loolu bis bu dajee ndaanaan lu man a yeewu xam ne ñu jàppee tànk. du ci génn. bu ko mayoon bu ko mayoon keneen ku. ku waaw ku xam ne ñuy jàppee tànk laa wax de. Mm, mm. du ma lim kenn waaye bu xam bu ma keneen ku xam ne ñuy jàppee tànk rek doo rëcc man ku ma jàpp sa tànk xool fi ngay tëdd. wër ndoom ma nag. dama koy waxi nopp kooku penalty la moom la xale yi tuddee penalty. penalty ah. bu dugg ah. rek. ku ko ah. rate ñu xam aada ba nga cuune. waaw danaa rate rek ba mu yàgg nga jëkk-jëkk ko ginnaaw. Mm. mu féetale ginnaaw. wala nga sukk mu féetale ginnaaw. comme ni moo ama seen defoon Balla Gaye hmm. yooyu yooyu tam ay njuum tey rëy rëy la ci bëri la yooyu yooyu njuum tey rëy la rëy la ci bëri te kuy bëri war nga cee gar sa bakkan ba doo ko def hmm. waaw koo ci def rek gàcce gàcce gi lay jub si hmm. waaw jërëjëf Père Birahim ma lay ah. jaajëfal bu baax. Ah. bu baax ci ah. leeral bu am solo. waaw dëgg la waaw ñoo ko bokk. ndeysaan ñoo ko bokk yow moom sama doom nga. dama laa bëgg eh, waaye ñoo ba ne danga naan dañoo bëggante. parce que sama doom nga sama xarit la. Mm. nit ku baax nga. Mm-hmm. nit ku yaru nga ku baax nga ku tey nga. ku neex waxtaanal nga tey mm. li ngay waxtaan xam. li ngay waxtaan mag ak gone loolu la ànd bi am yi nga xamul hmm. ma di la ko leerlal hmm. sam na ci baati olof yoo xam ne yi hmm. doo koy xam yow ah, mooy nguufaan ak njett nguufaan ak njett noonu benn am na façon bëri yu bëri buñ demee ba ci kam naa la jàngal lu ñu koy waxee ci wolof ndeysaan waaw ay ritteeg ay mbas Mm-hmm. xamoo riti xamoo mbas mm-hmm. xamoo gulër bi mm-hmm. ak jàllar bi gulër bi yooyu yëpp tamit ak tëru yooyu yëpp ay façon bëre yoo xam ne yi dafa am ci façon bëre yoo xam ne yi pardon jàllalu tequm jàllalu ak tequm biir tequm biti yooyu yëpp dafa bëri ay façon bëre yoo xam ne yooyu ko di jàngale ci télé bi ñiy seetaan di ko xam parce que ñu bëri boo ci mës a jaar dafa am yoo xam ne yi tamit pour nga xam ko day jafe loolu mooy am jërëjëf jërëjëf Père Birahim mm. mbokk yi mm. loolu lañ leen indi doon tey ci jàngat làmb bàyyi jiili Père Birahim di jëfal ñëpp sama xarit yi Pape Gueye Seydi Aji Gueye borom Espagne sama xarit bi nga xam ne su ma tegee ci télé bi rek ma gis foto Balla Aïssa bi ci kaw rek sama xol day sedd di gërëm bu baax a baax a baax Zeus borom Brésil moom it sama xarit bi mm-hmm. maa ngi koy ñaanal bu baax yàlla suñ borom guddal fanam te mu ànd ak wér euh, Seydi Fati di jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi seetaan wasaare làmb ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. waaw maa ngi maa ngi nuyu waa wasaare yëpp nag. Hmm. di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Moustapha Guèye ci Moustapha Jamil. Hmm. di ñaan yàlla mu yàgg jiite groupe bi lool. Hmm. ndax ñu ñëw ma jox ko Pape Konaté Serigne Kane. sama xarit la sama rak la sama xarit la ñoom Malal Ndiaye xale yooyu yëpp. ñoom Serigne Mbéri Mamadou Mbéri Sey borom alxuraan ji. ndeysaan alxuraan moom alxuraan bu xëyee moom la ñuy jàngal. ndeysaan jàng sootu yaasin jàng mulku ñaanal ko groupe bi. na yàlla yàggal taxawaayu. amiin taxawaayu groupe bi yëpp nag. amiin amiin waaw ak groupe yi ku lim a juum ñoom mm. Alioune Kandji ñoom ñëpp xale yooyu yëpp mm. dégg nga ñoom Bité Ndiaye ñoom euh, kii nu mu tudd euh, Ibou Ndafa moom it ndeysaan moo yor social ni ko ku baax mm. dégg nga ak euh, mu Amadou Kati Diop ñoom Grand Mbaye Sy dégg nga ñoo ñëpp di ci dimbalante di ci jàppalante nag mooy groupe bu baax a Moustapha a jiite ko nag man nag maay trésorier bi jot na nag ngeen wut nag ku ma aw nag ah, waaw parce que tamit yorum xaalis yombul mm. uh-huh, maa ngi nuyu ñëpp di saar ñëpp di yàlla yàlla di ñaan ci yàlla yàlla yàggal bi amiin yàlla maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Birame Ndaw Ndoye Fallou Diop ñoom itam ma ko fàtte borom ceeb bu ne war na la ko invité nag koor gi koor gi ba léegi lekk goo ah, ah, ah, ceeb bu dijj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 ndaanaan laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne mën ci mën ca mën ci yi boor ak ci yëley njaay ni roowu maag ñoom tuuna rëy ma juut waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si